groß. Ich kann da nichts machen, guck mal da. Merci. <laughs> Merci. Merci. comme son nom wuyu ma ñëpp wuyu si nañu. waaw. nga daal def tour tournée. européen bu fa jógee dem États-Unis. tournée américaine. américaine canadienne. mais manager manager. après loo gisee euh, sa artiste. non ma. Ah. rek ci xale. ah ndax mu dara. wala naa dara. salaam salaam Sénégal man Momo Dieng maa ngi seetaan télé sénégal point com fii lay neexee fii rek la xewe fii rek la